fidèles internautes Dakar Midi ñu ngi amaat métier ak kontaante comme ni niñ koy faral di ko defee saa su nekk Sénégal booree football dañuy euh, def reportage wàcc su le terrain wax ak askani Sénégal ñu waxee seen xalaat nee leen nii lay demee saa su nekk bakkan yi jeex ñu nag yéen dara du leen rëcc ba Sénégal ba Sénégal indi ndam li Sénégal loolu la ñuy ñaan yàlla ma ànd ak sama man bu ñu fas yéene dugg si gars yi xuus waxtaan ak gars yi ñu. salaamaaleykum sëñ bi nuyu naa. waaleykum salaam soxna tur beeg sant bi. man maa ngi tudd Mouhamed Diagne. Mouhamed te ñu fekk la fii bëgg a waxtaanee yow si cadre match Sénégal bi nga xamante ne moom la war a football suba war a jàmmaarloog Burkina Faso nu gisee match bi. waaw bon match bi ñu ko gisee bon par rapport ak match bi passé match bi passé ñu ko abordé moom c'était bien quoi waaw nañ ñëw rek abordé waat même chose wala ñu gën a augmenter niveau bi. loolu laa gën a gis sax pour ñu gën a augmenter niveau sooy seet kan bi lu match yi lu muy gën a dem rek niveau yi di gën a yéeg quoi waaw suñ ko augmenté moom gëm naa dinañ am dara. Eh, noo gisee placement bi. bon classement bi passé waaw c'était bien ah bien c'est bien à part xanaa Boulaye Dia Boulaye Dia daal moo si xawoon passé à côté tuuti ak Gana Gueye ñaar ñooñ daal te Gana Gueye moom jour bu am expérience la te gëm naa ne prochain match incha allah par rapport ak Boulaye Dia Boulaye Dia moom su ma sañoon sama xalaatu bopp la nag su ma sañoon bon ñu ko ak Ismaïla Sarr kon Ismaïla Sarr bii passé def na rentrant bu baax moom it rentrant bu baax la def par rapport ak blessure bu mu jugee quoi. Cheikhou bon Cheikhou Kouyaté waaw Cheikh Cheikhou Kouyaté moom guerrier la quoi. Hmm. guerrier la si équipe bi macha allah mais xam nga tamit mënoo mënoo mënoo génne keneen tamit di ko fa dugal Nampalys Mendy était l'homme di match. Hmm. moo nekkoon l'homme du match moom rek nga mënoon génnee foofu te soo génnee Pape Gueye tamit milieu bi du am joueur offensif Pape Gueye moo nekk joueur offensif bi Gana kii kiiwam lañ ko fay bàyyi expérience am waaw ñoom ñetti ñooñu daal laa gis quoi ba leneen di xew après deuxième mi-temps bi ak lu mënti am après ñu defa changement rek waaw loolu laa gis tey yàlla. bi nga foog ne mën nañ ko dóor. bon Burkina Faso waaw Burkina Faso tamit équipe bu baax la quoi équipe bu baax la wax yàlla Sénégal suñ ko négligé dëgg-dëgg ah yow buñ ko nég suñ ko négligé du baax de yow mu ñu respecté bu baax parce que Burkina Faso équipe bu baax la ñor. seetlu naa leen seen yëpp waaw mun naa am daal ay 2-1 2 waaw dana wala 2-0 daal waaw. ñu ngi lay jaajëf. ok jaajëf. <laughs> salaamaaleykum. salaam. tur Ibrahima Wade. Ibrahima tey noo gisee match si Sénégal bi nga xamante ne moom la war a jàmbaarloog Burkina Faso demee. Ah, am si yaakaar rek comme metti na direeku nañ ba agsi fii am si yaakaar ni incha allah dinañ dem final parce que loolu la ñuy ñaan daal parce que commencement bi métti woon na trop mais comme yàlla def na agsi nañ fii. di ñaan yàlla ñu finaalu ak jàmm. Euh, noo gisee classement bi euh, match dernier bi par rapport ak match suba. non changement foog mu am parce que comme ni ma leen ko waxee woon keroog rek match bu ne ak li laaj man moom sama xalaat mooy Cheikhou Kouyaté suba dafa war a bokk. parce que boo xoolee burkinabé yi seen seen football lépp si milieu terrain bi la parce que boo xoolee am nañ fa ay joueurs yoo xamante ni Top Saba xaw ma ak euh, keneen ki seen football bi yëpp fa kon nag foog ñu am milieu terrain bu baax mooy que Cheikhou Kouyaté Gana ak naa palis waaw waaw sant yàlla bu baax. non Touré. waaw Touré noo gisee match si Sénégal euh, Burkina Faso bi nga xamante ne moom la match bi suul. ah Sénégal xanaa yàlla ñu góorgóorlu rek waaw comme bi passé dóor nañ moom bu subaa yàlla mayaat leen dam rek waaw Sadio Mané nag na gën a mën a dugal ay bii rek gars yi gën a kontaan rek. waaw classement bi nag moo moom lu mu tegoon keroog moom baax na ma wax dëgg yàlla moom. premier mi-temps na teg loolu boo xamee tuuti faay deuxième mi moom ñu mu changé rek Sénégal jëm kanam. non deux bii rek deuxième mi-temps ñu dugal benn bi jeex muy trois waaw. foofu <laughs> si naa bi. yaa Noyin Sarr. Noyin Sarr mais suba bi. ah max bi gars yi amuñu woon yaakaar mais instant am nañ yaakaar de <laughs> ginnaaw man maa waxoon Sénégal boo ma jël jël coupe bi ndax xam nga rek li ñu tax suñu yaakaar daa bëri mais instant am naa yaakaar quoi. yaakaar <laughs> waaw waaw am naa yaakaar. Aliou Cissé mën nañ ko bañ a wàccee. non Aliou daa xam-xam lay def barke sëñ Touba toj na équipe nationale. ñoom Matar tamit gërëyee la bu ñu wàccee kenn na gars yi <laughs> <laughs> na gars yëpp ñëwaat bu kenn wàcce kenn. nga bi nag. non classement bi baax na wax dëgg fa yàlla parce que tamit keroog ba mu defee changement bi ñu bëri ñu ngi koy saaga mais xam-xam la xam-xam la def ndax euh, su mënee génne ñaari ñaari jours yu baax yooyu xam nga dugg naa yeneen ñaari jours ñaari jours yooyu def différence kan moom football la xam-xam quoi jàmbaar dëgg la nañ ko ñaanal rek. ñaata bii nga ñaata bii comme. Sénégal bii la mën a euh, a dóor bii di ñëw nii. bii di ñëw mun nañoo dóor 1-0 mun nañoo dóor 1-0 de mënut a doon score quoi parce que ñii football tamit ay ndaanaan lan waaw ay ndaanaan lañu man bii sax laa mooy final bii moo gën a métti buñ ci génnee rek mun nañoo jël coupe waaw bu génnee ci bii yàlla mun naa dogal ñu jël coupe mais bii moom buñ ci génnul mun nañoo dem fenn waaw ndax ñii ñooy dër bi ñii ñoo gën a saf ci équipe bi moom ñii moom wax dëgg yàlla yàlla yàlla xeeb doole rek waaye buñ leen gañee moom am mun nañoo am yaakaar quoi vraiment Euh, comme sëñ bi nuyu ah, waaw noo gisee match bi nga xamante ne Sénégal la am na ko suba war a jàmbaloo ak Burkina Faso. waaw match bi daal lu ma si xam mooy du yomb quoi mais nañ def effort rek bañ a bàyyi bien vrai que ñoom ñooy favori mais ñu bañ a estimer euh, Burkina Faso quoi parce que CAN bi moom yombul te ku joué ba dem demi-finale xam waroo kaa xeeb quoi gën a yokk jom rek waaye noonu laa ko gisee quoi. noo gisee classement bi nag. non classement bi moom pour man bii passé quoi baax na waaye pour man bii passé buñ ko tegee mun nañ am dara quoi. salaamaaleykum. ça va na ngeen euh, bi. Mouhamed Badji. gisee match ci Sénégal euh, bi nga xamante ne war na jàmbaarloog Burkina Faso suba. bon gis naa ne par rapport ak lu ñu waroon bi passé. gëm naa ne bon nañu indil football bu rafet quoi xam nga bon après on a eu des cas de Covid patati patata bon j'espère que loolu duñ si fekkaat mais tamit Burkina day football xam nga donc il faut faire attention jël suñuy calme xam nga comme Abdou Diallo tamit nu mu ko waxoon bon voilà ko rester le pieds sur terre et football lu ñuy football yàlla baax gisee classement bi euh, match si dernier par rapport ak match si suba bi. bon ça allait comme li ma la wax rek ak cas Covid yi ñu amoon c'était pas évident ñu teg classement boo xamante ne xam nga du doon ak Sénégal mais bii pas comme de la gis nañ ko te xam nga on a été satisfait quoi pas totalement mais on attend plus. Mm, ñaata bi nga yaakaar ne Sénégal mën na ko dugal. Burkina tamit équipe bu mag la de. waaw Burkina bi ma gis. peut ay 2-1 yooyu rek waaw te en plus xam nga toog nañ ba match bi passé door a encaissé but donc défensivement ça va bon disons 2-1 wala 3-1 comme bi passé rek parce que Burkina day football moo tax ma may leen 1 bi. <laughs> lay fay. man Babacar. Babacar euh, Babacar noo gisee match Sénégal bi nga xamante ne am na ko suba moom ak Burkina Faso. Burkina man instant man xamal la laa jàpp. incha allah rabi dañuy jël coupe bi xam nga demi final lañ toll mais coupe bi ñoo ko moom xam nga daa amoon benn cohésion bu amoon suñu équipe Aliou Cissé doo ko dine ana ñoom Karambooj ana ñoom Gassama gisuñu leen mais yàlla tey jii lu mu teg teg na vérité teg lépp incha allah rabi dañuy am ndam ndam rek la ñuy kii burkinabé yi njool nañ mais ñoo leen mën ñool daax football dañoo gaaw si. par rapport ak match dernier bi match dernier bi waaw ah, match dernier bi xoolal na la demee dañoo dugal remplaçant ñaari remplaçant lañ dugal muy Kouyaté ak kii nii nu mu tudd Ismaïla ñoom ñaar ñëpp dugg def différence loolu kay jarul ñuy wax <laughs> loolu kay amul leneen luñ ciy waxaat. maaleykum salaam. tur beeg sant bi. noo gisee match ci Sénégal ak Burkina Faso bu demee bi. ah Burkina. trois lañ trois lañ koy doore trois. su yaroo su yaroo. Hmm. ñu dóor ko pat quoi mais su réyee moom ñu dóor ko trois hmm. waaw loolu la. c'est que ñun dañoo war a gagné match bi ñun benn étoile lañ bëgg benn étoile rek benn étoile bëgg ñu leneen mu dul benn étoile ngi ñaan yàlla moom may ñu benn rek benn étoile rek hmm. waaw di wax gaay yi amul leneen. mais xam nga ni Burkina équipe bu mag la tamit. wax bi nga daa takkale de daa takkale de. ngi moom mooy loolu baaxul baaxul. ay njool man man maane laa am ay gaynde laa yor. mais ku may wax bu laaja bu laaja ngir yàlla Aliou Cissé bu laaja dafa jënd xam ko def Aliou Cissé ngir yàlla bu laaja ngir yàlla bu laaja laa xam bu laaja bu laaja may jooyloo quoi première occasion waruñu kaa raté bu laaja na xaar na xaar Iso ñëw na waaw Ismaïla Sarr ñëw na dugg waaw bu mu ragal blessure bu mu jugee na na joxe na joxe na te tamit faama jiw tamit bal yu may yooyu noonu na koy dugal bu mu dara nañ dugal bal yëpp maanaam tamit moom mu gën a xam quoi na na na joué quoi na mooy loolu. Idrissa Gana Gueye macha na dëgër na dëgër sonn nañ trop ñoo sonn kimbis tamit na woy de na woyaat de kimbis. ba ba kii yàlla ma kaa nopp hmm. kimbis. non naa la jox numéro après. waaw kimbis macha allah hmm. may nañu tuuti ci yu neex. 30 secondes yooyu na koy yokk di ko def ay une minute une minute une minute waaw loolu moom dëgg biisaat billaay il faut ñu jël coupe bi coupe bi moom il faut ñu jël ko moom bëgg naa loolu waaw Aliou Cissé fekkee joueur dañ koy fay nañ ko wax mhm. joueur yi fekkee dañ koy fay nañ ko wax sonn nañ trop billaay moom bëgg nañ jël coupe bi quoi match allah mercredi ah yaakaar le la suba la. maaleykum noo def. maa ngi fi. tur beeg sant. Ibrahima a noo gisee match si suba Sénégal bi. ah match si Sénégal bi moom kay instant yi impact mais Burkina Faso bu ñuy seeg moom Aliou Cissé li def baax na de waaye Mame Baba Thiam Ibrahima Mbaye xaw ma Ndiaye yoo kooku moom kay bàyyi nañ xaar nañ xaar quoi bu jëlee ko bi waaw après ñu ñëw amul garaaw mais pour pour équipe bi moom baax na changement yi baax na ah passante yi yaa gën a noo am Ndiaye joxal Diop 10 ah. waaw ñuy sénégalais daal ñuy kontaan ñuy dellu kontaan bu baax. xam nga Burkina tam yor nañ équipe de. Burkina équipe bam daa takkale de. billaahi daa takkale. Burkina yeey eh, Burkina amul Cameroun wala mu am Algérie wala Sénégal Burkina dañ koy ñëw bu yaroo ñu dóor ko parti bi bu ree moom ñu yan ko diis waaw bu moom ñu yan ko diis dem ak moom ñu sol suñuy caaya dem mu ni fecc ba doyal nag voilà noonu lay demee. waaw ziar naa la yaa ngi si jàpp soxna si. tur beeg sant bi. waaw tur bi de Alaaji Buur Géwél la bon Alaaji Buur Géwél. Alaaji noo gisee match Sénégal bi nga xamante ne war na ko jàmbarloo ak Guinée ak kii Burkina Faso suba. waaw waaw affaire de moom sant la rek maanaam mbir mi moom sant yàlla rek ndax li ñu doon ñaan yàlla daanaka yegg si nañ ca ñaan yàlla muy qualification bi te yàlla def na ni ñëw nan ah loolu dañ ciy sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax a baax rek di ko waajal nag di leen wax ne joueurs yi daanaka ña fa nekk ñëpp suñuy rakk lan ak suñuy mag kon nañ gën a góoru xam ne ñun ñoo ngi fii Sénégal ñoom ñoo ngi foofu te yaakaar naa ne lan fa nekk di ko liggéey lépp pour ñun la kon ñun nan leen gën am encourage bi rek gën leen a jàppale waaw tan bàyyi wax ji daal te gën a góorgóorlu rek li si des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla yàlla baax na. Euh, man la Médoune Mbodj. Médoune Médoune noo gisee match Sénégal du suba ak Burkina. ah match bu nar a la nar a doon de maanaam Burkina équipe bu physique la ñoom dañuy daw ci ginnaaw bal bu baax te du yomb ñoom soo xoolee bu baax dañoo def lu bëri pour egg fi ñu egg ni instant demi final te instant amatul ay kii moo mën kii moo mën ku mën sa morom da dóor match bu nar a la daal euh, te tamit euh, gars yi nañ. bàyyi di technique genre suñuy jeu équipe rek chaque fois dañoo war a produire bu rafet pour genre pour gagner le plus important mooy c'est que ñoo ngi gagner daal di dem su fekkee ni ñuy def pour jël coupe moom baax na parce que fii Afrique soxlawul beau jeu yow daal da nga dugal après nga qualifié loolu rek moo gën a important Afrique. noo gisee classement bi par rapport ak match dernier bi est-ce que classement boobu mën nañ koo maintenir wala. non bii kay dañ koy maintenir que dina am risque nag ndax Nampalys dafa jëloon jaune ak. Pape Gueye ñoom ñaar dañoo jëloon jaune tegal leen nag doon doon risque pour final bi mais classement yi moom amul dara lu ci changé waaw à part juste que euh, entraînement démb bi Boulaye Dia dafa xawoon blessé peut-être mu indi Ismaïla Sarr mais wóorul parce que Ismaïla Sarr dafa jógee blessure à loolu moom amul leen la ñuy changé ci classement bi à part Boulaye Dia waaw. nuyu maa ngi lay fay soxna si. Euh, tur beeg sant bi. sant Ndiang. Papa Ma euh, noo gisee match Sénégal demee beeg Burkina Faso. match Sénégal moom dañuy door rek gagné rek waaw moom gagné rek lañ gis ñun waaw ndax réew bi suñu réew la bu ñëwee ñun ñëpp koy bokk waaw yàlla yàlla def jàmm rek ñu gagné waaw loolu daal la ñaan saa su nekk waaw leen bëggee nag yéen ak sa caméraman bi maa ngi koy bëggee bu bëree bëree bari sama waay la kontaan nañ si yéen télé bi mooy ban télé sax. Dakar midi Dakar a fi ne. <laughs> waaw <laughs> da nga bi nuyu naa waaw ziar naa la. Euh, tur beeg sant bi. Moussa Diop. Moussa Diop monsieur noo ñoo fekk la fi tey euh, noo gisee match bi Sénégal bi nga xamante ni moom la dafa war a jàmbaarloog Burkina Faso. en tout cas si incha allah match ñu ngi ñaan yàlla Sénégal gagné yàlla na gagné 2-0 bu soobee yàlla loolu la ñuy wax quoi incha allah. Burkina tamit équipe bu mag la de. non Burkina effectivement équipe bu mag la ndax parce wane na tamit lu war a xam ne match la lu war a mën a tax mu war a mën a gagné waaye dañuy ñaan yàlla yàlla équipe nationale Sénégal gagné. waaw parce que Burkina équipe bu mag la xam ne xëy na football bi day nekk match boo xamante match bu ñuy bu ñuy négocier la match tactique la match boo xamante ni ah euh, nu ko mën a waxee daal mooy Aliou Cissé war naa bàyyi xel bu baax ndax que suba la gars a xam ne Aliou Cissé coach la wala du coach ndax xam nga critique bi bari na waaye suba la gars yi war a gën a mën a xam ne Aliou Cissé mën na li mu doon wala mënu ko ndax parce que match bi tactique moo koy gagné du match boo xamante ni da ñëw rek ah joxe li nga am déedéet foog ngay football di di gérer sa ginnaaw ba loo ba jéem a gagné match yi quoi jéem a nax Burkina gagné ko te yàlla nañ ko gagné ci 2-0. jërë ngeen jëf ni ma leen ko waxee woon au début rek gis ngeen euh, sénégalais yi ku nekk wax na sa xalaat ci match bi ak classement bi Aliou Cissé ni mu mën a def ak ni ñu mën a def pour gagner euh, gi euh, Burkina façon ñu xam ne Burkina tamit ñoom duñ épique bu ndaw mais ak lu ñu mën xew daal ndam rek la ñuy ñaanal sénégalais ñu am ndam bu set bu sedd guy. Euh, ñu door Burkina dem final incha allah indi coupe ndax ñun moom soxla nañ coupe bi moom macha allah gis ngeen gars yi wax wax nañ seen xalaat ku nekk instant yi coupe bi nga coupe bi nga soxla daal. nii lay demee saa su nekk euh, saay bu Sénégal waree ful ba rek dañuy wàcc sur le terrain wax ak askan wi Sénégal yi ñu joxe seen xalaat.